salaamaaleykum mbokku internet soppe yi ak téléspectateur yu TMS TV tey nag ñu ngi fii ci pikin rue 10 fi nga xamante ni fii la Fatou Kiné Gaye euh, ñàkkee bakkanam place bii ngeen di gis fii mooy point Wave bi nga xamante ni fii la doon daanee doole fii la doon liggéeyee ba ki nga xamante ni mooy collègue am naataangoom bi nga xam moom la doon liggéeyal mu daal di koy faat ci biir loolu nag dañuy dugg ci biir euh, fekk fi ki nga xamante ni mooy Algoha Sène nga xamante ne moom moo njëkk euh, ci li nga xamante ne mooy lieu drame bi moom moo njëkk fekk fii ki nga xamante ni nii Kiné ak anam bi mu euh, ñàkkee ba kanam kon nag topp leen ma ñu dem ci biir xool Algo Hassane mu daal dañuy wax ban anam lañu ñu faatee Kiné ak ki ko faat ban comportement la am gannaaw ba mu ko faatee ba pare. oui oui je dirais kay sax effectivement bokk naa ci ñi ko njëkk a fekkee lieu drame bi. d'ailleurs man maa ko signalé police maa ko signalé sapeur pompier euh, nit ñi ko yëg daal daanaka mën naa ne man maa leen euh, alerte hmm, bon euh, dafa vers vingt et une heures cinquante une dama am sama benn xarit bu ma woo au téléphone ne ma dama la soxla ma génn mu ne ma maa sa buntu kër ma génn fekk ko mu toog ci banc bi alors ma toog à côté de lui ne ko bisimilah mu ne ma sama doom dama ko yónni woon ci multi service bi alors mu mu mu am lu mu fa fekk lu doy waar ne ko lan la mu dafa fekk euh, deret te jigéen ji mi ngi ci deret bi ma ne ko jigéen ban mu ki ki fay liggéey la yaakaar ne moom la ma ne ko allons y voir donc ça veut dire que à part xale boobu nga xam ne moom dafa dugg daw jaaxle nag xale bi tiit di lox man maa fa njëkk bi ma ñëwee ma dugg bi may avant may duggu ma taxaw ci bunt bi j'ai regardé ma gis vraiment y avait la lumière affaire baa ngi leer mais aussi toutes les portes étaient ouvertes porte yëpp ñi ngi ubbeeku porte centrale bi yeneen porte yëpp ñi ngi ubbeeku alors ma yëglu yëglu ci kaw asalaamaaleykum ci kaw bu baax kenn wuyuwul ma def deuxième fois kenn wuyuwul ma ne fii kenn nekku fi kenn wuyul ma avancé tout droit dem ci kees gi ci laa yërndu man nag bi ma yërndoo j'ai vu di sang parce que yooyu bëgguma koy xool daal j'ai vu di sang rek ma daal di wàññeekuwaat pour confirmer li li li xale ba pare kenn wuyuwuma kenn yënguwul mais ki ma àndaloon papa xale bi moom nag moo yërndu plus loin yërndu bu baax ne ma oh rey nañu ko ma nu ko ah bon mu ne ma ah way xale bi mi ngi tëdd ci ci deret ji quoi ma ne ko allahu akbar donc mon premier réflexe c'était d'appeler la police alors j'ai appelé la police mais auprès de la police aussi j'ai insisté pour leur dire que xale bi nekk ci multi service bi dafa mel ni dañ ko dañ ko rey ñoo it ñu ne ma ah ñu ngi ñëw tout de suite et là je remercie parce que en moins de cinq minutes maximum police moom yegg si na donc euh, après la police j'ai appelé les sapeurs pompiers ñu ne ma est-ce que police yegg si na moment boobu police yegg seegul woon ma leen non non non police yegg seegul mais nee nañ ma ñi ngi ñëw léegi ñoom it sapeur pompier na ma ñu ngi ñëw léegi donc euh, c'est comme ça man ak waa ji ñu taxaw noonu mais ce qui est te ma mën ko wax nii tey jii par rapport ak enquête bi bi mu génnee moom mooy tey ki ñu accusé non moo moo ma romb ak vitesse ki ko rey tey jii ñu ñu ñu jàpp ne moom moo ko rey nii moom ci à part ñaari boy yu ma ko waxoon ñu taxaw di jaaxle moom moo ñu romb rek mbëkk ñu vitesse la duggee ci biir affaire bi ma bëgg ci biir multi service ci moom ci biti la dawee rek dugg ci biir multi service ak vitesse nag après daan ne daal di daw rek ma bëgg parce que bëggu moon ku daw di yegg foofu maa ngi commencé di sécuriser milieu bi mais moom mu daw daf ma fil rek romb dugg ci biir directement rek ma dégg mu yuuxu wuy Kiné man ci laa door a xam ne sax xale bi Kiné la tudd après mu wël wàññeekuwaat ñëw ci ñun rek daanu foofu nag di yuuxu di jooy di jooy am na nag ku ko xamaa ah, xamatuma kan la ci mu ne pourtant dafa war a ngénte après demain wax na lool man nag ma yërëm ko ñoo après ma yërëm ko man mujj gi sax comme que Kiné c'est fini moom maa ngi commencé réfléchir ma ne collègue la parce que daf fi doon nekk man daan naa ko fa fekk en plus waaw ma ne comme que collègue am la affaire bi affecté na ko te après demee lay ngénte maa ngi naa oh moom it affaire am yëpp yàqu na daal xam nga ma yërëm ko ma koy nax di ko dëfal di ko nax ndeysaan xale bi di yuuxu yuuxu yu métti yi moom moo amatee nit ñi nit ñi cil ci moom la ñu dégg nit ñi daw si ñëw nag nit ñi fees foofu mais ce qui est moom mooy police bi mu yegsee booy bi dafa mel ne rajo boo tijji woon rek fay ko police dafa dugg si rek mu mel ne dañu fay rajo bi mu noppi loolu tamit remarque la mais xam nga rek après dama ne peut-être moment boobu la jooy yi waroon jeex. non j'en revenais pa <laughs> man man démb par exemple yëg naa ko gars yi na ma booyee ma ne non non non non il faut que la police confirme non loolu non mënul nekk laa leen wax il faut que la police confirme gis nga fii ma toog fii laa indi booy bi fii fauteuil bii fii laa ko teg sama soxna see taxaw. booy bee ko feebarloo ndax dafa topp ci booy bi di ko nax mu gi ñu àndandoo di jooy sama doom bi dugg léegi maam jaara moo ko doon jël ndox di ko sotti pour pour pour mu dal booy bi fii la ci fauteuil bi la toog di jooy non non jooy yu met sama waa kër ñëpp ñoom demuñu ci événement bi mais fii lañ toogoon di ko gérer di ko nax di ko dëfal noo àdduna àdduna doyum na waar ah. c'est après coup laa ne mais man jaaxle naa trop te loolu aussi je ne dis pas après coup oui après coup parce loolu ci guddi gi déjà am naa information ne booy bi daal ñu ngi koy soupçonné après man it ma commencé di réfléchir ma ne mais booy man maako yëg man police laa fi woo sapeur pompier laa fi woo ak ñaari booy yi kan moo ko yëgal ne kii dafa décédé loolu tamit xam nga eh, après loolu nag loolu c'est après coup que ça vient ak kër jël yi ma dem ba pare booy bi mu toogee fii yër yi mu soloon après dafa dem summi ko il est revenu avec dot habits et je remercie la police pourquoi parce que man bi ma toogee ci biir police boobu bi mu noppee noonu ba pare commissaire bi mu ñëwee moom gis naa dafa jubal ci biir xool avec beaucoup de sang-froid nag man maa ngi ko doon xool dama defoon day xool rek di jaaxle mais euh, non non non commissaire mais beaucoup de sang-froid mais c'est leur boulot après il est revenu il m'a appelé mais booy moom mi ngi noppi après mu génne booy bi parce que comme que ay jooy la fa nekkee woon mu ne na sortez commissaire booy bi génn man mu téye ma foofu après demandé ay enquête ma demande wax ma li ma leen wax nii ni ma ñëwee fekkee situation bi mu laaj ma est-ce que bi ma ñëwee dama fekk buntu yi tijjeeku ma ne wéy dama fekk buntu yi tijjeeku mais beneen question bi moom a jaaxal euh, mu mu ne ma est-ce que bi est-ce que am na ku dugg ci biir ma ne ko wéy wéy am na benn booy bu daw dugg ci biir mooy ki toogoon fii di yuux et tout de suite il moom laa soxla man daal. man daal alkaati tamit jaaxal nañ ma daal voilà pourquoi il insiste sur le gosse là di wax man moom laa soxla man mënu ma ndax xam nga ko ma ne ko non xaw ma ko man xam naa ne daal je crois que nee nañu collègue am la donc euh, mu ne ma non kooku laa soxla il a insisté xaw ma booy bi daf ko loolu moment boobu évacué nañ ko ba indi ko mun nekk fii fii aussi daf fi toog ba yàgg benn booy moo ko jël ne ko nañ la yóbbu nga jibbi booy moom mu dem ñibbi mais bi mu demee dafa summi li mu soloon après solaat yeneen yére ñëwaat bi mu ñëwaatee nag la commissaire bi lijjanti ko ñu jël ko dugal ko ci biir di ko enquête di ko enquête fekk la police scientifique est venue bi yàgg bi ñu ko enquêté lu yàgg après la police scientifique yónnee wala ñoom ñoo dem mais dañu jëli yére yi mu soloon dañ ko dem jëli indi ko fi lañ ko téye nag ci biir di ko cuisiner di ko cuisiner ba vers deux heures du matin dañ ko libéré woon non non man ma man lo joxuma leen information boobu joxuma leen ci benn information mais xam nga suñu police bi dañoo xaral dañ ko laaj alors nangam di di day lijjanti loolu xam nga. donc je ne sais même ñoom nan la ñu xamee ne dafa soloon yeneen yére affaire yooyu peut-être ci biñ koy enquête loolu la ñu am ana est-ce que so ana yére yi nga soloon loolu lañ koy laaj est-ce yére yi nga soloon yu mel noonu peut-être loolu lañ koy laaj donc euh, euh c'est comme ça que ça s'est passé et man ci guddi gi déjà maa ngi commencer am doute. ak information boobu déjà ci guddi gi man am na ko au niveau de la police ah mais euh, loolu moom ñemewuma koon wax journaliste yi interviewé nañ fi ba tey mais côté boobu ñemewuma ko laal parce que mënuma ko gëm ba yeer interviewé nañ ma ñemewuma ko tudd parce que loolu mënuma woon comprendre ne nit wax dëgg yàlla dina mën a def lu lu ñaaw lu lu lu mel noonu euh, bon loolu tamit euh, dara jaru ko ci àdduna dara jaru ko tey ji nee moom ñi mu faat dafa bëri faat na ndaw si faat na mbokki ndaw si faat na ay mbokkam faat na jabaram faat na doomam parce que à jamais way la woo xam ne dootul fay ci moom dootul fay ci ay waajuram dootul fay ci jabaram dootul fay ci doomam jooju mu bëggoon a teral moo tax euh, soxna si doylu gor dignité loolu su jógee ci doomu aadama bi rek jeex na de souvent am na loo xam ne lii nee naa ñooñu dañuy encourager sax léeg-léeg xale yi di wax ne xale yi par exemple euh, amuñu moom moo tax euh, ñuy def ay lu bon ñàkk taxul bon kii mi ngi doon liggéey ñàkkul donc lan moo fi nekk gor ak doylu boo goree moo da ngay góor toog jàpp sa jàmbur xam nga xam nga lan mooy fas jom xam nga ñuy wax fas jom comme ça rek nit ñi di dem di seen yoon fas fas le cheval gars yi dañ koy ngalaab waaye ji koy ngalaab xamul ndax bëñ baa ngi metti xamul ndax làmmiñ bi dagg na xamul ndax euh, tuñ yi dagg na fas yoonam xamul ba pare di ko dóor foo xam ne fii waruñu ko faa dóor di ko dóor façon boo xam ne kenn xamu ko di ko yéegloo ay montagne di ko sëfloo ay poids est-ce que fas dafa masa a ŋonk onk rek ne noo maa ne noo attan tey ma noppalu di ko taxawal ci naaj à la place de ker loolu tax ñu ne fas jomu fas nit ñi nag ci loolu la ñu war a delluwaat jom yu famille bi am na ndey ndeysaan euh, imam bi nga xam ne bi moom lañ ko bàyyele woon mën naa ne parce que defe naa moo ko ñaani woon wala moo ko mayee woon imam euh, Abim Ndiaye lañ koy wax ñoom moom it ñoo ngi profité di ko ñaanal di ko sant bu baax ci taxawaayam rafet na lool taxawu na njaboot gu bi macha allah moom dafa bokk aussi parmi ñi ko njëkk a yëg parce que moom am imam Habib euh, ji euh, patron ndaw si ki nekk Maroc déjà affaire dafa gaaw ki nekk Maroc moo leen ko yëgal ñoom moom imam Habib moom moo dem ci seen ci waajuram waxtaan ak moom defal ko ba yëgal ko ko mais ak li muy doon imam ak borom xam-xam ak personnalité bi mu am bi mu ñëwee fii jooy na fi jooy yoo xam ne yii gars yi naa ma ndax kii mooy imam bi mais imam nit la jooy yu metti pour te waa parcelle ci boppam ah globalement unité 1 waxuma famille de mais waa parcelle ñoom dañu ni ñu mobiliser woo taxawu ndaw si ni ñu fanaanee fii jusqu'à trois heures du matin tout le monde était là taxaw di xaar trois heures du matin parce que police scientifique dafi nekk di def liggéeyam ñoom it ñu leen di sant liggéey bu mucc ayib lañ fi def jusqu'à trois heures du matin trois heures et demie sax defe naa ci lañ jëlee corps bi ci la door a génne ñu dem et puis les populations pikinoises ñoo ngi leen di sant bu baax ñoom mën nañu taxawu de gis nga nit ñi dañu taxaw vingt et une heures trois heures trente ñu taxaw taxaw nit ñi waxuñu dama sonn nit ñëpp fàttee reer loolu metti na trop keroog metti na trop mais suñu borom bi daal la ñuy ñaanal rek moom dafa shahid mën nañu wax loolu euh, yàlla na suñu borom bi mu xippee ji aljana woy ñu bari ñu ngi koy réclamer ah naan pen de mort pen de mort mais n'oubliez pas ah peine de mort amoon na fii voilà peine de mort amoon na fi et en 1967 ah peine de mort bi mu fi amee depuis je crois ay 63 en 1967 lañ ci mas a rey ñaari nit te peine de mort nekkoon na fi di continuer fi defe naa jusqu'en 2004 entre 67 à 2004 mosuñu fee rey kenn xam nga lan mooy importance su affaire lan la ñu war a def plutôt c'est d'appliquer les lois xam nga ñu indi ko pour indi ko rek ça ne rien mais suñ ko indee ñu appliquer ko. parce que diggante deux mille euh, soixante deux mille euh, dëgg diggante soixante sept boobu ba deux mille quatre am na ñoo xam ne condamné nañ fi à mort mais kenn appliqué wul loi bi ci seen ko donc c' est plutôt l' de la loi loolu mooy suñu grand grand problème defe naa ci loolu la ñu war a dellusi pourquoi pas réclamer ko ñu delloosi ko ensuite mais ñu appliquer la loi ku ku mu dal sa kow ñu xam ne dal na sa kaw ñu appliquer la loi pour pour pour jëf loolu am na ci responsabilité président loolu moom vraiment <laughs> président yow laay jàkkaar wax la ko président wax dëgg yàlla grâce yi bëggatuñu ngay wax ne dañ la ko indil nga signal ko président s'il vous ñun ñëpp sa njaboot lañu s'il vous plaît les grâces là nañ la koy saytul soo ko mënul saytul bopp nga wut ñeneen ñoo xam ne ñi dina jaar ci ñoom ñu saytu ko ba mu leer président vous vous rendez compte que souvent ay agressions su amee dañuy wax ne pourtant ci grâce bu bërki démb bi la bokk s'il vous plaît président grâce yi mi ngi ñuy sonal ça ne sert à président ñu agressé suñu doom yi ñu rey suñu doom yi ñu jàpp leen ñu yóbbu leen yoon war a dal seen ko yoon dal seen ko wéy yow yaa am possibilité boobu wéy yow yaa am degré boobu wéy yow yaa am matu boobu wéy yow la yoon jox pour nga gracier sa yëf la yaa moom mais war nga koy segg président loolu appel la wax dëgg yàlla cri de cœur la boo xam ne bii parent boo xam ne bii notable bu dëkk ci gox gis lu bon lu ñaaw li ñuy def suñu doom yi wax dëgg yàlla cri de cœur la président boo xam ne bii ñu ngi la koy jëmale. effectivement jàpp naa ne am na ay solution yoo xam ne suñ ko tegee effectivement agression na wàññi je vous un exemple faat ki ne gay mii ñu faat gardien su nekkoon fii affaire du demee nii caméra de surveillance su amoon. waa ji di fi liggéey en même temps xam ne caméra de surveillance yaa ngi nii ñu ngi koy xool à distance affaire bi du demee nii donc loolu dafa bokk ci li nga xam ne ni ñi ñi ngiy liggéey ñu protéger seen employé yi protéger waa gox bi mais aussi dafa am loo xam ne lii euh, mën naa ko wax ne dafay incomber les maire si vous plaît les maires chaque fois bu nous dites que la sécurité du compétence transférée oui xam nañ ne du compétence transférée monsieur le maire mais yéen a ngi def en permanence loo xam ne lii bokkul ci compétence transférée yi te yéen a ngi koy def yéen a ngi ciy dugg seen loxo yéen a ngi ciy jàppale ñun juste ce qu'on vous appelle juste ce qu'on vous demande moom mooy déjà il des comités de vigilance kii sont mii en place hein est-ce que am na lu leen remarqué yéen les agressions se font plus ñëpp remarqué nañ parce que les nuits il y a des comités de vigilance yoo xam ne yii am na ci yenn gox yi yu bëri vous voyez nga xam ne bu nit di génn guddi gi léegi suñu gox zone bi xale yi jigéen yi nga xam dañu dëkk ci suuf nii ñoom bu ñuy xëy léegi ay 5 heures du matin gardien yi ñoo leen di gunge ko fii sama buntu kër rue 10 ñu taxaw xaareel ba ñu am oto ñu demaat jëli ñeneen ñëw noonu la ñuy def moo tax agression yi moment yooyu amatul léegi bëccëg bi nga xam ne bii ces gens nekkuñu fi mais ñooñu moment boobu la ñuy def agression yi donc on appelle au maire ñu jël ay subventions les ASC lan lañ fiy liggéey lan lañ fi am am na loo xam ne li créé nañ ko ñu ngi koy apprécier bu baax au niveau de l'État mooy xëyu ndaw yi mais xëyu ndaw yi na ci loolu bokk xëyu ndaw yi na ci loolu bokk ñu def ay subventions pour ces comités de vigilance parce que kër yu bëri du ñu fay gars yi moo tax du ñu am ay employés yu doy pour mën a régler problème de sécurité bi mais suñu leen subventionné woon ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo yor. Euh, problème de sécurité bi former former former les lutteurs en matière de sécurité ñu subventionner leen créer leen ay société de gardiennage mais sëñ bi sécurité bi léegi mu del siwaat ñii di ko def bëccëg ñii di ko def ngoon ça c'est un deux il y a les places publiques il faut qu'on en parle et ces places publiques sont mises en place par les maires c'est de bonnes idées nous sommes d'accord prenons suñu place publique bi bi ko fi maire bi def nous avons apprécié parce que man j'étais conseil municipal pendant deux bi biñ ko fii def man j'ai voté pour ñu def fii euh, place publique bi mais place publique bi ko maire bi def c'était génial parce que dafa amoon lumière dafa amoon wifi donc ku fi toogoon di nga xam ne sama doom moo fi toog di nga xam ne doomu sama doom bale moo fi toog parce que yàlla lumière mi ngi leer ñu toog di connecté ça au mois c'est la sécurité mais depuis que le wifi est parti depuis que les lumières sont depuis que garab yi xumb sëq nii léegi fii c'est devenu un dortoir su ma xëyee suba julli ba pare soo rombee mën nga compter minimum quinze personnes yoo xam ne fi la ñuy fanaan mais ñooñu ñan lañu léegi ñun ñu dëkk fii te place publique bi ñu réservé leen ko pour suñu bëggee féexlu ñu dem féexlu fa dañ koo seexlu dañ koo ragal parce que da ngay xëy suba ay ponkal toog fii ne xujj di la xool léeg-léeg benn ponk la mooy jóge fa la ñëw ba sa buntu kër ne la may ma ndox ma sëlmu wala may ma ndox dama bëgg tuur ndox loolu dafa bokk ci li nga xam ne lii moom mooy insécurité bi ñu bëggoon ñoom place publique yi caméra de surveillance ça ne coûte rien du tout monsieur le maire léegi gars yi yor seen boutique yi yi sax kër yi kër yi sax am na ay caméra de surveillance mais mettez des caméras de surveillance ci place publique yi mais mettez des caméras de surveillance ci yenn angle yi ci yenn lieu public yi mais si loolu ça vous incombe le maire s'il vous il faut ngeen participer ne restez pas wax état état état état dañ leen fal parce que yéen ay démembrement de l'état ngeen prenez vos responsabilités donc yéen aussi maires yi loolu lañ leen di ñaan y en a beaucoup effectivement est-ce que xam nga lu tax parents yi seen responsabilité foofu si mën naa ci laal tuuti ah moom mooy euh, malheureusement le téléphone léegi borom kër gi soo wàccee ñëw sa téléphone bu vidé da nga koy yàkkamti branché connecté ko say boru julli soo koy fay yaa ngi xalaat est-ce que connexion bi mi ngi jàll ba nga téléchargé say message ba nga ñëw nekk ci sa doom su ñëwee di nga ne ko xaar ba ma liir sama message bu demee ci yaayam yaay ji ne ko xaaral ma ñëw ma ma xool message sa dañu rejeté xale yi à cause téléphone te téléphone bi jumtuwaay bi mënul wuutu ci ñun suñu baay yi mënul wuutu ci ñun suñu soxna mënul wuutu ci ñun suñu doom mais léegi téléphone bi lañ jël ñu wuutu mu wutu ci ñun suñuy doom malheureusement loolu dafa bokk ci li nga xam ne nii wallaay parent yi am nañ ci responsabilité suñu téléphone yi nañ koy wutal waxtu mais mënuñu en permanence kër gi da ñëw nga fekk fi dix personnes kenn dootul wéttali sa morom kenn ku nekk yaa ngi sa téléphone yow yaay wéttali sa bopp loolu moom moo yàq kër yi loolu moom moo yàq xale yi mais lu mu métti métti métti xale yi aussi ngor dafa baax parce que le paradox c'est quoi ñu bëri seet leen léegi ñi nga xam ne ñii ñu may def lu bon li soo demee seen kër dinaa la doomu ilimaan bi la danañ la doomu sëriñ bi la seen baay dafay baax seen ndey dafay baax mais ñoom ñooy yàq ñooy ñëw yàq njaboot ñoo ñëw toroxal seen waajur yi s'il vous plaît justement parce que c'est la rue mooy mooy boo après ci rue bi lay doon loo liggéey loo togg ci biir boo demee ci biti ñu ñu yàq ko c'est la rue donc ma leen di ñaan ngeen ngeen liggéey ci ngor ñii toog fii di ma interviewé mais ay jeunes lañu comme yéen ñi ngi nii di jàpp seen liggéey am seen ngor lekk lu lew dafa baax yéen parents yi tamit lijjanti leen lu lew ñu jox ko xale yi parce que mooy tax xale yi duñu agressif mais su dee liggéey lu lew bëgg di di di dundal suñu doom yi aussi ci loo xam ne lii dafa araam mais xale yi aussi suñu màggee suñ ko nàmpee mënoo fexe ba duñu def lu bon donc euh, j'en appelle aux parents mais j'en appelle aussi ndeysaan xale yi seen waajur mën naa bon mais yow nga gis ne waajur bi kat li muy def jaarul yoon yow nga jéem a rectifier yow nga baax parce que baax yomb na sama mam moom ma ko doon wax mooy da ngay xool ñi baax ñu ne ñii ñoo baax nga xool nan la ñuy def nga toppandoo leen ñii ñoo bon nga xool lan la ñuy def nga moytu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah